tey mbokk yi yéen ñu toppoon ci waar wi TV nekk alalu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul ci ziyaare yi leen doon defoon ñu ngi fii nag kër Sëriñ Abbas ah, fekk fi nag njabootam macha allah ñoom it ñu wéyee ndigal li nga xam ne moom la ko tedd gi sëriñ Mountakha Bachir digle ñu wéyee ko ànd ceeg seen waajur sëriñ Bassirou Anta Niang ñu woyee ko boo dikkee fii xam kër gi ni daan mel tey nga ñëw fi màggal da nga xam ne murit moom ndigal rek mooy lu ko war ñu fekk fi njabootam nag ñu ziyaara leen ah, waxtaan ak ñoom naka la màggal gi ren ak mbas mi tey sàkkut ñu ñaanal ñu mbas mi jóge fi ba ku ne delluwaat ci sa liggéey ci barke Sëriñ Tuubaa. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu bokki déglu ak dinu seetaan ñu ngi fii ci kër Sëriñ Abbas Mbàkke mi nga xam ne ñu ngi ñaan yàlla yokk ay leeram bu yàggul rek lanu dëdd ñu fekk fi ak njabootam Sëriñ Basiiru mi nga xam ne moo mag ci njaboot ñu ñaan mu yàgg fi lool te ak rakkam yëpp. waaye ñoo ngi ñu jox ndigal nag ab sëriñ Abdou Khoudous Mbacke mu bëgg a yëkkati kàddu ci bis bi nga xam ne mooy bisi màggalu ko Daaru Muxti teeñu gis ngeen kër gi ni mu demee lañ ko euh, wéyee ci ndigal li xam ne moom la sëñ Muntaxa joxe te sëriñ Basiir mi nga xam ne moo toog euh, toogaayu borom daru wéyee ndigal loolu ba ci fii gis ngeen ko noonu la wéyee kon ñu ñaan rek yàlla yokk leeri sëriñ Abbas mi nga xam ne ñu ngi ko doon fàttaliku démb ci émission bu am solo kon noo ngi fii ci ak njabootam nag bu ko fee xam naa ñu bàyyi leen ak sëriñ Abdul Xudoos ak euh, soxna Maam jaar a Sekk ci laaj yi ak ci tontu yi. asalaamaaleykum di nuyu mbokk yu tedd yi nga àndal di nuyu itam mboolem ñu ñuy gis ñu seetaan ñëpp di sant bu baax waa télé bi nga xam ne moom lañuy waxe di nuyu mboolem jullit yëpp di ndokkeel mboolem jullit yëpp di leen sant bu baax ci teewaay gi ngeen teew ci bis bi ndax ñun yàlla dafa dogal amuñu lu bis bi kon ku fi teew wala ñu fi teew ak lu fi teewal rek loolu danañ ci sant bu baax di ci bëgg. xam naa nag li ñu gënaloon ñu ngi leen di sàkku lu ngeen sàkku ñu leeral ko rek ñu leeral hmm. waaw xam naa diggante maam Thierno ak ku tedd ki moom daa nekk lu yaatoo yaatu loo xam ne du yomba wax ci diggante bu gàtt waaye diggante maam Thierno ak eh, Serigne Touba moom yàlla rek ko ko xam ndax Serigne Touba day ku kenn xamut maam Thierno itam di ab morit saadix bu mel ni sëriñ bi bëgg ñaareel bi itam fa mu féete woon sëriñ bi yàlla day def ci ci àdduna yàlla doo nga fi doylu wala yàlla doo doylu waxuma la ci àdduna yàlla doo nga ci koo xam ne soxla wut kenn waaye sëriñ bi dafa maam Thierno dafa féete woon sëriñ bi fu nga xam ne fa mu ko féete duñ ne kenn mënu ko faa féete waaye xam ne daal fa ko féete yàlla suñ borom moo ko dogal moo tax wax ci wax ci wax ci wax ci diggante Sëñ Tuubaa ak Maam Cerno moom day doon lu gudd gudd loo xam ne eh, du doon laaj bu yomba yomba tontu lool lool lool waaye teewu daal liñ ci wax daal mooy sëriñ bi mooy li ci sëñ bi waxal boppam rek mooy Sëñ Tuubaa dafa wax ne lam yu faariq ne fii chaqarihi wala fii kibarihi mos ñoo taqalikoo ci ak ndawam ak ci magam mos ñoo taqalikoo boobu boo ko waxee bari na ñuy misaal sëñ bi ci diggante Muusa ak Haaruna bari na ñuy misaal eh, sëñ bi itam ci musa ak Xudar waaye boo xoolee ñoom ñaar seenu diggante sax day raw diggante yooyu day fa dafa mel ne ci niñ koy ci niñ koy misaale ndax boo xoolee Xudar alxuraan dafay wax ne faaraxa bayni wa baynak ñoom ñaar bañ àndee dafa wax ne day mel ne am na diggante buñ tàqali ko woon sëñ bi nag dafa bind lam yu faarix nii beneen ba ci topp itam mu bind lam yu xaalif nii ñàkk tàqalikoo mën naa yomb waaye li li jafe mooy ñaar ñu tàqalikoo ba pare juyoowuñ juyowuñ ci mbir te sëñ bi moo bind ne mosuñoo juyoo loolu nag bu ñu waxee ci diggante sëñ Tuubaa bu ñu ci waxoon ñaari baat yooyu képp mu doy sëkk mooy lam yu faariq nii mosuñoo tàqalikoo bañ mos a itam lan yu xaalif nii mosuñoo juyoo ndax yaa ngi nit ngeen a ànd ak ndaw ànd mag waaye nag da ngeen juyoo waaye nag lan yu xaalif nii moom mooy mooy moo moo ci yéeme lool sax nag te sax ci sëñ bi ak borom Tuubaa buñ ci waxoon lool rek mu doy sëkk bu dee li nga xam ne mooy bis bi itam bis bi day bisub lislaam boo xam ne ci lislaam yàgg nañ ko cee maggal yàgg nañ cee defi ñaan ku ne xam na ne am na ay hadis yu wàcc am na ay alxuraan yi itam yu wàcc ci guddi gii mooy inna anzalnaahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munsirin fiha yufraxu kullu amrin hakim amran min xindina inna kunna mursilin mooy guddi gi lay wax nga xam ne suñ borom bari na yu nga xam ne koy dogal ci at mi ci guddi gi la koy décédé ba ci wërsëg yi moo tax yon bi di digle bu guddi gi jotee ku ne jàng ci ñetti yaasin yaasin bii Euh, suñ borom defal la jàmm bi ci topp ak gudd fan bi ci topp suñ borom defal la nga mucc ci balaa yi wàcc at mi yëpp ndax comme comme be guddi gu ñuy dogal gu ñuy décider ay dogal bu ñàkk xëy na balaa yi lay wàcc at mi ci balaa wàcc nga ñaan suñ borom musal la ci balaa yi yaasin ba ci topp nga ñaan suñ borom xéewal yi ci wàcc ci at mi itam suñ borom xéewal la ci mun a xam na ne loolu jiitu na borom daar lu yàgg yàgg yàgg beneen ba topp itam mooy liir mbir la koy rëyal ku ne xam na ne guddi goo xam ne ayab alxuraan da cee wàcc rëy lool guddi goo xam ne ab ahadis da cee wàcc da ci na lool waaye guddi goo xam ne dañu gën a wér mooy sëñ Tuubaa dañu guddi nisfu Saxbaan la gane àdduna xam nga borom xam-xam bi dañuy wax ne maanaam guddik la guddik gàmmu gën a rëy guddik lay xadar ku ne xam ne guddik lay xadar lëy na lool ndax li ci alxuraan wax nga xam ne wax nañ ne mel na ne jaamu ko yàlla mel na nga jaamu yàlla juróom-ñett fukki at ak lu waaye guddik nisfu saa guddi guddi gàmmu gu wàcc gi ci ya yonente bi wàcc tax na moo gën a rëy gépp guddi lu ko tax a mooy yonente bi wàcc gëm ci wàcc kaw suuf kon guddi guddi gi itam guddi gi sëñ Tuubaa wàcc ñun itam dañu koy jàppee ne guddi gi yonente bi wàcc ndax maanaam ñun sëñ Tuubaa fañ fañ teg yonente bi xamuñu fañ teg yonente bi lañ ko teg fañ ko teg loolu ko waxee maanaam ñiy gis ñiy gis borom xam-xam mën nañ ne yonent bi fa mu tegu kenn kenn waru faa tegu gëm loolu la yàlla wax waaye dañu sëñ ñun moom lañ xam mooy suñu wasiire ci diggante ak bi mooy suñu rëyteef ñaareel itam sëñ bi day mujaddid loolu itam du lu ñuy wax ni di ko kere waaye du ko bind lil Mustafa nawaytuma yu jaddidu te yonent ab mujaddid bu ñëwee day taxaw taxawaayu yonent kon mën nañ ne sëriñ bi fañ teg yonent bi lañ ko teg waxuñu nag fam fay yonent bi tegul la la tegu loolu ñu bañ koo jaawale waaye dañ ne ñun fañ teg yonent bi lañ ko teg loolu képp ku ñu ci laaj lu tax itam mën nañ la ci tont tont yu baree baree bëri kon guddi gi mën nañ ne guddi gënu ko rëy ndax bu fekkee dañ ne guddi gàmm moo gën a rëy ci guddi yëpp moo gën a màgg ci guddi yëpp jaamu ko yàlla moo gën a farata ci guddi yëpp lu tax ñu ne yonent bi judd kon guddi gu ñu Sëñ Tuubaa itam ci la gane àdduna guddi googu itam rëy na fi noonu lool ba na kon daal ñu ngi soññ suñ bopp di soññ jullit yëpp waxuma la taalibe borom daal waaye di suñu guddi jullit yëpp ñu gën a fonk guddi gi gën koy màggal beneen ba ci topp itam mooy sëriñ bi suñ borom da ko doon liggéeyloo liggéey boo xam suñu soyee suñu texe àdduna ak alaxira ci la nekk loolee yàlla def ci guddi gii la gisee ak borom daaru ba mu demee ci tukki ba seen tàggatoo bu daw yaram ba nga xam lam la liggéey ba mu doon liggéey ci la ko liggéey ba mu liggéey ci guddi gi lañ gisawaat ku ne xam ne bañ tàggatoo ko bañ tàggatoo ca Mbàkke Baari booba metti woon na lool naqari woon na lool Christ woon na lool waaye biñ dajee waaye tey itam ñoom ñaar ñëpp sant sant nañ yàlla ndax ku ne xam ne ne seeni noon bégguñu seeni noon lañ bëgg buñ ko amoon duñ gisawaat daje bañ daje woon itam ci guddi gi lañ ko daje kon li ma tax li war a tax ñu fonk guddi gi di ko màggal lu baree bari la waaye xam naa lool rek lañ ci lañ mën nañoo taxaw ni foofu xaaraat xaaraat beneen beneen laaj waaw xam nga murit moom buñ koy wax li wax suñu sihaar suñu màndarga mooy ndigal ñun buñ demee ba ba ñàkk loolu mën nañu desewuñ dara parce que baat bi nga xam ne sax boo waxee murit ci moom nga cay teg da na murit ndigal loolu lu fi fekk la ndigal loolee nag li fekk murit mi ngi doon murit murit loole moo fi nekk mbir lum rey rey ci ñun xam nga sëriñ bi waxut ne buñ màggal dane nañ màggal màggalu daara gi waaye nañ soppi defin wi lu tax ñu soppi defin mooy ni li jamono yàlla def jamono mooy yàlla indi jamono mooy mbas mi comme que mbas dafa am adduna bépp gëm ko di ko dund loola itam farata la bépp jullit mu dunde ko noonu ndax yonent bi sallallahu dafa wax ne bu fekkee da dégg dëkk dafa am dam nga fay déggu mbas bu fa dem boo fa nekkoon itam bu fa jógee boo amee ci kon loolu liñ ci déggee mooy boo amee na nga sàmm sa bopp na nga sàmm yitam ñeneen ñi moo tax sëriñ Mountakha bi mu diglee ne maanaam nañ ko màggale nañ ko màggale woon daaw taalibe li ñuy xir xir xir ak guddi gi li muy rëy rëy rëy ñu sopp defe ni soppi defe ni mooy ñu defe ko ci suñuy xol defee ko itam nañ ko daan defe waaye nag ne na kenn ku nekk defee ko fa nga nekk loolu lañ ci loolu lañ ci jublu maanaam mooy fexe ba moytu daal nga xam ne daal li nga xam ne moo moo xew ci jamono moom la ñuy dégg ci jamono buñ ci buñ ci laale dara waaye li ñu ci gën a itteel mooy suñ mbokk mu baax dafa waxoon loolu mooy Serigne Moustapha Fall doomi sëñ Modou Aminta Fall daf ne ñun ragaluñ corona bëgguñu Macky Sall baat boobu la utiliser waaye daan ne daan ne sëriñ bi sa ndigal lañ lañ maanaam sa ndigal ñu gën a lépp loolu daal xam naa moo ci ëpp solo dëgg la nag bu dee ci wàllu mbas mi moom maanaam ni ko àdduna bépp dundee lañ koy dundee waaye daal li ci ëpp solo ci li nga xam ne moom la def daal mooy ndigalul sëriñ bi daal moom mooy mooy mooy moo ñu moo ñu ëppal solo lépp ndax nag suñuy suñuy bakkan moomuñu ko yàlla suñ borom moo ko moom te itam corona suñ mun taxa da ci wax baat boo xam ne Sénégal buñ ko jàppoon te dégg ko dana ñopp lool mooy dana corona defut dara jaamu bu yàlla la <laughs> loolee nag luñ ma lu mat a jàngat la ci ci ci coono biñ ciy daje yooyu yëpp gis nañu baat bi sëñ mu taxaw waxoon buñ taxawoon ñu yor wàllu santé taxaw jàngat ko waaye sëñ bi li mu wax lu mu jublu buñ ko jàngat dañ xam ne li sëñ bi wax buñ ko defee coono yu baree bari yuñ ci fekk duñ ci fekk ndax dem nañ ba ñi nga xam ne sax ñoo ci doon ñoo ci doon ñoo ci doon def ay pexe fi ni ni fi ñu mujj mooy seen def mel ne seen pexe da cee jeex ndax dañ ne lañoo def lañ defoon te mbas mi mbas mi tax lépp bàyyi nañ ko te pourtant mbas mi ba léegi ñoom dañuy wax ne mi ngi ci waaw ñu ngi leen di ñaanal itam ñu ngi leen ñaanal itam site bi nga xam ne mooy Waarwi TV suñu borom barkeel ko ba fépp fu télé di àgg fépp fu organe de presse di àgg mu àgg fa beneen ba top itam mooy mënuñoo wax ba daaneel te tudduñu suñ kilifa gi fi nekkoon muy sëñ Abbas ñu koy tudd bi ci njëkk mooy ñaanal suñ borom mi nga xam ne moo yor yërmande yàlla yërëm ko te taasu ci barkeem yokk ay leeram bu baax a baax nit la ku nga xam ne liñ ci seede dañ koy seede rek te yàlla tax xam nga wax ci sa waajur dafa dafa neexut deret ndax dalaa jege xam na sax ñu ci ci ci lislaam dañuy wax ne nit ki matut seede diw matut ci diw seede benn ak bokk gu jege waral ko wala ak waaye nag nit ku fi jóge nga wax ci lu baax te yàlla rek tax loolo moom dama gis ne wa yaakaar naa wërta wàññi dara ba tax na sëñ Abbas yàlla dafa def dëkk bi mu dëkk fi la ma sa dëkk kër gu mu amaat kërug liggéey la waaye kër gi boppam gi nga xam ne ay njabootam ci lañ ma sa nekk mooy kër gi dëkk bi itam mu dëkk fi lu lu yàgg dëkk fi wa juróom ñeen fukki at yu teg ni nag bu fekkee da ngaa dëkk ci dëkk juróom ñeen fukki at yu teg yoo xam ne foo dem fu ne gan nga fay nekk kër ga nga am fa mooy sa kër bopp say njaboot fa lañ nekk yàlla def nga jóge fa amul lenn lu la nit mën a waxal ci loo xam ne say njaboot wala ñi la bëgg buñ ko déggee dañ leen naqari loolu ku ko yàlla defal dañuy ak cant la moo ba tax ne jóge gi fi jógee ñun ay jabaram dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax ndax liñ koy sant mooy bu njëkk bi ci njëkk mooy lim ñu defal yonent bi sallallahu dafa wax ne nit defalu doom lu gën yar ko nit defalu doom lu gën ko gis nga nit boo ko yarut lu am mën na koo ñàkk waaye boo ko yaree lu mu ñàkk mën na koo am ba tax na maanaam ñun sant nañ yàlla bu baax ci loolu maanaam yar nañu ci ci xam nañ tumuranke ñaareel ba itam yar nañu ci lislaam ba tax na bi fi jógee itam ñun ñëpp maanaam dañ ko def ak sant yàlla sant yàlla mooy ni ko yàlla melaloon mu nekk nit ku baax nekk ak ay nawleem ci dëkk bi nawleem yëpp nawloo ko nawleem yëpp nawloo ko kon loolu bu amee ay njabootam dañ ciy siggi beneen ba ca topp itam mu dund fi lu yàgg li fi dund amul lenn lu nit mën a wax ci ne lii moo ko fi defoon ci loo xam ne da nga ragal ay njabootam dégg ko wala nga ne lii kat bu ko bu ko bu ko bu ko ab soppeem du ko neex kenn ku nekk benn baat bi lañ maase mooy nim mel la ma sa mel. te nim meloon mel na nu noon yàlla ndax mu nam meloon bu fekkoon ne ab safaan la duñ ko wax ba tax na ñu ngi koy ñaanal yàlla euh, baayam bu baax ba fam nekk mu fekk ko fa te itam rafet nañ ci njort lool rafet njort nag lañ ci man ndax dañoo gis ne. yonente bi sallallahu alayhi salaam sax maanaam buñ koy ñaanal yërmaane lañ koy ñaanal suñ Tuubaa bi muy ñaanal waajuram soxna jaara ku na xam na ne mënuñoo wax ne moo gën ci jigéen waaye dañoo jàpp ne gën ci jigéen ñi la bi ko sëñ Tuubaa di ñaan lu mu baax wala tuxayyib rajaaha bul tas suñu yaakaar ci moom ba tax na kon suñ baay bu baax ñu ngi ñaan suñ borom bañ a tas suñu yaakaar ci moom ba bar sax gam nekk e, yàlla defal ko fa ay teraanga yu baree bari coono ba mu doon daj njabootam suñ borom fay ko ko coono ba mu doon daj ci jaamu yàlla itam suñ borom fay ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf ñu sant bu baax. Eh, dégg ngeen ko noonu mu ko waxee te loolu lu wér-wér la kon Serigne Abbas ñu ngi ñaan rek yàlla yokk ay leeram kon lii daal lañ leen jëlal fii ci kër Serigne Abbas Mbacke ci kanam xalifa bi Serigne Bassirou ñu mag ci njabootu Serigne Abbas Mbacke wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.